National Assembly member for Serekunda has called on the three years Jadna to state clearly if they intend to overthrow the government on 28 January. Speaking at the National Assembly on the adjournment debate, Halifa Saleh said, the people who combined to bring about the change deserve respect and cannot be insulted because they effected a change that no one could bring in decades. In a democracy, the law controls the rights and powers of people and the power of people must be recognized based on law. Yes, we agree three years, which is only possible under the Gambian constitution under section 65, but the normal mandate is five years. If you have a contract with someone and he has no longer recognizes the contract towards the law comes, what the National Assembly members and leaders sorry, um, leaders or parties should tell the people is that the law states five years. So if the if you betray a confidence of three years, when the five years comes, there is the red line. If you pass that red line, the power of the people and the power of the law will ring on your head. That is why we give Jamme the chance to be here until January 18, and that is what the world supported, Salah said. Um, he's actually Momungewa Mbiri three years Jadabe to clarify actually to the people whether um um, dañ intend to force President Adama Barrow out because toog nañ fi um, si um, suñ plateforme yi fii gars yi dañu wax ne fii um, ñoom they don't intend to remove Barrow that was the word you used the word and he was like no it's we don't intend to remove Barrow so moom lola, neka de di full clarity is very important ñoom lala. actually intend to do They want to si biir kàddu am bi moo Gambians are no more fools doo ñëw nga ne ñu fekk nekkul loolu maam Jabi lan moo nekk sa njàngal waaw defe naa ne lii ba tey njaw daf cere des euh, li nga xam ne moom moo nekk euh, njaw dafa desaw xambin ndax li tax mooy euh, ba léegi nit ñaa ngi am xel ñaar ci ruuma ndaat ne trois years jot na lii seen mébét rek mooy génnee fi njiiti réew mi fi nekk waaye ñoom ci ndortef lañ waxoon rek mooy dañuy fàttalil kilifa yi wan ne suñ des yi dañ leen war a put accountable accountable mooy loo wax nit ñi démb tey da nga ko war a dëggal xalifa wax na ko fi mu ne contract la woon ci biiru nangutoo jàmme mu fi nekkoon ci ay dégeet bi loolu amee ñoom jàpp nañ ne dañ leen war a delloo njukkal ñoom ñi nga xam ne ñoo taxaw taxawaay bu nu mel segam loolu amul nag ay saaga ay xaste bu fekkee moom moo ciy am jàpp na ne loolu jàppul ne ci liñ doon xaar waaye fam jeexale waxam mooy fi ñëpp di waxee mooy ne constitution bi dafa joxe ñaari li nga xam ne mooy sarta sarta bi sa coobere la ak sa ak ak yelleef sarta bii mooy sarta bi nga xam ne moom lañ la put into office muy five years te five mooy mandate bi nga xam ne moom la fi baro toog te jàmme bi mu fi nekkee sax ba jeexal nguur luwaa dafa am lu mu ko mayoon te loi boobu la toog ba luwaa ba jeex li ko luwaa mayoon moo jeexaloon li nga xam ne mooy dooleem kon defe naa ne buñ delluwaatee ci loi lépp lu nga xam ne moo amoon dinañ ci mën a déggoo waaye nag jàpp nañ ne tamit ñiy taxaw taxawaay trier citizen lañ am nañ seen àq ak yelleef ngir def seen proteste ak yu jëm ci yooyu waaye bu ñu foqar ñi nguur ndax lu lu nekkul lu lu waa nangu well exactly um, foog naa ne yëfi yëfi yëfi three years moom hmm. uh, nekkatul lu bees si waxtaan bi uh, you know waxtaan wax nañ ci lu bëri uh, waaye comme Halifa tamit du ko waxee foog naa ne you indi nga ko te loolu dafa am solo waaye daal li ci li ci mënta nekk daal wala li ci mënta am nañ jàpp ne daal réew mi daal ñëpp ñoo ko bokk te am na ñi nga xamante ne moom mooy loolu waaye nag démocratie la kii dafay gisee nii kii gisee na le waaye xam naa luñ ci wax rek dañ dañ koy waxati ndaw wax nañ ko ci hmm.